mu ni inna allaha taala qaal yàlla nee na man aada li waliyan faqad aadantuhu bilxarb yàlla nee na képp koo xam ni noonoo nga ku féeteeg man nee ko kooku déclaré naa ko guerre képp koo am yaa ngi noonoog ku féeteeg yàlla muy waliyullah parce que àdduna bi ñaari fi am waliyu rahman ak waliyu shaytaan waliyu rahman mooy ñu féet ak yàlla du góorgóorlu seen kemtalaay kàttan ñooñu nag danoo wuute ci seeni tolluwaay waaye lan mooy wali alwali yu mooy bépp jullit bu gëm yàlla te ragal yàlla kullu muminin taqiyin fa huwa waliyun min awliyaa illah yàlla nee na alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun nee na waliyu yàlla yi mooy ñi yàlla te ragal yàlla du ñu tiit du ñu jàq kon ndakate waliyullaa du ni ko ñenn ñi jàppe fii ci Sénégal bu nee waliyu rek nga jàpp ne moom ay nit la yoo xam ni moom ñu exceptionnel la déedéet wala yu daal ñoo xam day nekk waa joo xam ni moom mooy naaw ci jaww ji pour nga ne pour nga wax sa kii wala sax parce que da moom moo daw ci géej gi moo dox ci géej gi moom moo jël xal bi wan ko maanaam loolu karaama la bokkul ak wila wilaaya wal ak walaaya dara kon jullit ñëpp ay awliyaa Allah la jullit ñëpp nag mais ni nu rawantee ku la gën a ëpp ngëm yàlla moo la raw ku la gën a ragal yàlla moola raw cig wilaaya te foofu ji xam ni ngëm yàlla day yokk ak di wàññeeku innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajalat qulubuhum wa ida tuliyat ayatuhu zaadathum imaanan wa rabbihim yatawakkaluun al imaanu yaziidu day yokk wa yanqusu di wàññeeku ka la gën a yëkkati ko ngëm yàlla moo la gën a amug noonu rekk la nit ñi daawante ci xadis bi ñëw ci xadis abi saïd al xudri yonente bi sallallahu alayhi wax naa man raa minkum munkaran fa mu ko jeexal def ni wa dalika addaafu l iman la gën a néew ci ngëm yàlla mooy loolu kon ngëm yàlla day yokk ak wàññeeku foofu nag la yàlla yi nekk waaye ab jullit boo xam nekk na jullit pare nekkul wali mënta nekk wali mooy ki féete ak yàlla tey bu féetul ak yàlla kum féeteel ko kenn kenn nangu ko di kon bokkul moo tax cheikhul islam ibn taymiya taalif benn téere bu am solo tudde ko awliya arrahman wa awliya shaytan téere bu ama ama am solo la mu ni képp koo xam ni day noonoo ngaa ki féeteeg man sama jaam bu ma nangul nee na kook na xam ni moom déclaré na ma guerre yàlla ku ko déclaré guerre doo ci mos am dam mu ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayya mimma aftaradtuhu aley wa ma taqarraba ilayya abdi sama jaam jugul di sàkkoo di ma jaamu pour jege ma lu ma gënal lu ma gënal li ma faratal ci moom maam jaam bi su jugee bëgg lu ma neex muy góor góorlu ci di ma jaamu deful lu ma lu ma gën a neex li ma farataal ci moom lam solo la bala ngaa bala ngaa bala ngaa maye dangay fay bor wala déet bala ngaa maye da fay bor bala ngaa def naafila da ngay def farata yàlla nee na defaloo ma benn jaamu yàlla bu ma gën a neex li ma farataal ci yow ba pare parce que boo deful li yàlla farataal ci yow leneen loo def saf ko loolu tamit lu jar a bàyyi xel la gis nga yii nii yépp ay erreur la yoo xam ne ñun dañ ciy tàbbi ñun ñun jullit ñi ak encore ñun sénégalais yi dañu koo xam ne du julli du woor ci weeru koor te loolu mooy farataam de moom mu jàpp ni mën naa def leneen loo xam ne dina ko remplacer loolu te amul ngàntu woor amul ngàntu julli kooku bu doon def bis bu nekk junni booli di ko jox ñiy woor te moom wóorul te amul benn ngant bàkkaar la cay jële bàkkaar la cay jële mooy lan mooy yàlla la muy def dara safu ko ci yàllaa ko ma de ci xadis bi xadis bi wér la wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kon bala ngaa saraxe parce que loolu saraxe la sa coobare la bu la neexee doo may doo doo tibbal kenn dara su la neexee doo may kenn dara te dara du la ci fekk. mais nga ñàkk a woor moom bàkkaar la kon soo bëggee yàlla nangul la sa jëf yu baax soo bëggee yàlla nangul la ah, sa saraxe bi ngay saraxe wala joxe bi ngay joxe ñam ci weeru koor yow da ngay njëkk woor ba pare bu boobaa nag. naafila boo def yàlla yàlla doglu koy nangul mu ni wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil xatta uhibba su defee farata yi ba pare nag nee na sama jaam bi mu ni wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil xatta uhibba sama jaam bi du dañ nag ginnaaw farata di ci dolli ay ndollent ay naafila di doolent ay naafila ba ma bëgg ko parce que bu ñu defee farata ba pare fan la ñuy rawantee ci naafila yi mu ne xatta ba naafila yi ci julli yi naafila ci jàngal xuraan naafila yi ci koor yi naafila yi ci sarax yi naafila ci jokku mbokk naafila ci yu bëree bëree bëree bëri mooy yi nga xam ne du farata ci yow waaye mbaax la nee du dañ nag di def loolu ba ma bëgg xataa uhibbahu la wax de waxul xataa yuhibbani parce que nit ki bëgg yàlla waaye na nga àgg ba yàlla bëgg la maqaama boobu moo gën a kawe nee na fa ida ahbabtuhu yàlla neen bu ma demee ba bëgg sama jaam bi kuntu samaahu alladi yasmaau bi man may nekk noppam nag bi muy dégg lu mu jublu foofu mooy lan mooy lépp lu muy dégg day jéem a fexe mu neex yàlla parce que loolu doo nga koy saf léegi gis nga ki dem dem dem ba sel toujours cëram yépp lam cee bëgg di dégg walla di génne mooy lu neex yàlla subhanahu wa taala la muy bëgg dégg toujours lu neex yàlla lay doon kuntu samaahu alladi yasmau bi soo bëggoon teg loo xam ne lu xaraam la ci kanam sax da koy gêné wala mu jug dem wa basarahu alladi yubsiru bi yàlla nee na may nekk bëtam boo xam ni moom lay xoole mooy lépp lu muy xool mi ngi ciy sédd yàlla bëtam yi du ci def lenn lu dul lu neex borom bi subhaanahu wa mu euh, wéet ak mu wéttaliku parce que àgg na ci benn sellaay bi mu ni wa yadahu lati yabtishu biha maa koy taxawee ci mun loxoom bi nga xam ni ci lay liggéeye albatshu mooy li ngay dóore wala li ngay liggéeye loxoom bi nga xam ni ci lay liggéeye ci lay eh, defe la mu bëgg a def yàlla subhanahu wa taala nee na dama fa ciy bàyyi xel lépp lum ci def ci ay cëram ab loxoom ma ngi cee bàyyi xel ndax lu dagan la wala lu xaraam bu dee lu dagan mu nekk ca bu dee lu xaraam mu moytu ko mu ni wa rijlahu llati yamshi biha dama koy tamit taxawu ci tànkam ya nga xam ni ci lay deme bu solee dàllam ba ni mi maa ngi jóg dem bërëb sàngam ma ngay xool ndax bërëb boobu tuyaaba la fay jële wala déet su dee tuyaaba da cay sawar dem bu tuyaaba dafay jóge li tax li ko may loolu mooy dafa sel jéem sel ba yàlla jàppale ko mu ni du ca yam waaye dina dem ba àgg ci wa in saalani la utiyanna saa yu ma laajee rek ma jox ko bu ma ñaanee rek ma may ko wa in istaadani su sakkoo ci man ma musal ko la uidanna yàlla nee na ma musal ko ma fekk ma nangul ko ñaanam boobu kon dangay gis ni nit ki su defee li yàlla bëgg yàlla defal ko lim bëgg te loolu ñépp la yow tey xoolal boo nekkoon ak say waajur ngeen nekk ñaar wala ngeen nekk ñett ngeen nekk ñaar kii lu ko waajuram sant mu nekk ca lum ko tere mu bàyyi kee lu ko waajuram sant du ca nekk walla genn ci wàll la cay nekk wala bu ci nekkee tey bu subaa du ca nekk te lum ko teree mu gis ko ca laa shakk ni kii topp ndigalam mooy gën a jariñu ci waajuram su fekkee ni ci nit ak nit la am waxatuma ci borom bi subhanahu wa borom bi ñépp ay jaamam la ñëpp ay jaamam la waaye nee na jaamam bi ko nangul bi ko nangul nee na bu ma ñaanee ma may ko su bëggee ma dimbali ko ma dimbali ko su bëggee ma musal ko ma musal ko kon yal na nu yàlla boole ca ñooña loolu mooy xadis bu njëkk bi nga xam ni euh, jànge nañ ci yu bari bi ci njëkk mooy saxal gu mu saxal ay jaamam yi féeteeg moom muy al awliya te muy jullit ñi nga xam ni ñoo gëm yàlla te euh, ragal ko yal nañ ci borom bi subhanahu wa boole waaw ndax yàlla nee na allahu waliyu alladina amanu yàlla ay waliyam mooy ñi gëm yàlla neen def na ñooñu ay péeteem allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adulumaati ila an nuur yàlla subhanahu wa di dimbali ba ñu génn ci lëndëm dem ci leer ñooñu mooy ñi yàlla waaye yéeféeri nag ñoom kan mooy seen wali kan mooy seen partenaire yàlla ni walladina kafaru awliyaahum taaxut ñooñu seytaane mooy seen péete seytaane nag nu muy def ak ñoom ndax da leen di génne ci lëndëm teg leen ci leer comme ni yàlla def ay gaayam mu ni déedéet yuxrijunahum min an nuuri ila zulumaat contraire bi mooy am daf leen di génne ci leer yóbbu leen ci lëndëm génne leen ci tawxiid yóbbu leen ci shirk ci bokkaale génne leen ci mbaax yóbbu leen ci mbonte génne leen ci njub yóbbu leen ci ndëngate yanañ ci yàlla musal kon euh, loolu lu nu mën a jàngee ci xadis bala dañuy jàng ci xadis bi encore ni ndakate daal nit ki lépp lu muy def la ca gën a neex yàlla mooy lam ko farat lam farataal ci moom su defee loolu ba pare nag leneen lu mu ciy dolli mu dolli ko ca waaye bu deful loolu moom na nga xam ni ah, yàlla faalewu ci dara beneen bañ ca jànge mooy ndekete yàlla subhanahu wa dañ koy saxalal almahabba yàlla day bëgg jaamam nit ni muy bëggee moroomu nitam nit ni muy bëggee yàlla yàlla noonu lay bëggee jaamam kon loolu lu nu mën a jànge ci xadis bi la liñ ci mën a jànge daal lu bari la lool waaye dinañ ci jànge yërmande borom bi subhanahu wa ak li yàlla ni in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ku nekkal yàlla yàlla nekkal la maam ku nekk ci li neex yàlla yàlla jàppale la yàlla nee na ku def yii yëpp soo ma woowee ma wuyu la soo ma ñaanee ma may la soo ma xettali ko ma xettal la kon nag yal na yàlla subhanahu wa boole ci boppam nañu yem ci xadis boobu incha allah rabbi hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah